aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla ci yonentam bu tedd bi ñoo leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sakku ci ñaan di dellu siwaat ci sunu jataay bi ñu tuddee Madinatul Ilmi te ñu koy amale fii ci 24actu ñu fas yéene ci ànd ak yéen ci ay bis bu nekk di ci waxtaan ak yéen loo xamante ni lu aju ci wàllu diine ak actualité li gën a doon te ñuy waxtaan nan la ci gis ñu lislaam dem tey jii nag ñu bëgg a waxtaanee Soxna Jaara Buso Soxna Jaara nag suñ koy waxtaanee euh, duñ ko waxtaanee en lettre Soxna Jaara fii la gën a àdduna fii la jàng alxuraan fii la kii yooyu yëpp xaj na kenn du wax ne aay na te day waru sax xamle fan la bokk ak ñan waaye gis nañ ni jéego boobu nit ñi jaar nañ ci jaarate ci. façon bi ñu ci bëgg a waxtaanee tuuti mooy waajal bis bu mag bi nga xam ne dañ koy defal ak taxawaay bi ci jullit yi war a am rawatina ñun ñi nga xam ne murit lañ ma seetlu tuuti ci soxna jaara communication bi ñu koy def ma seetlu communication bi taxul mu ci lool ndax ni ñu koy waxee ci biir da nga yëg ne ay xar la ciy feeñ mu ëpp. nga yëg ne ñàkk xam gi tamit dëgg-dëgg xam kan mooy soxna si ndax bi ñu fi jógee léegi dafa yàgg. te ñi ci bind bëriwul ah loolu it tax na ba xam-xam yi bëriwul xóotul lool ah, ba tax na ixtilaaf yi bari ci lool communication bi tamit dikk gën a bon ndax ni ñu koy communiquer ku jot rek wax indi defar bu doon ah, parce que nit ñi ay boroomi xel lan ay boroomi xam-xam lan am yoo leen di wax yoo xamante ni bu dee ci wàllu xel dañuy am fu ñu ko mën a dajee bu dee ci wàllu wax xam it dañuy yëg ne xam-xam indiwut lii kon nit ki suy wax na wax loo xamante ni lam xam mu yem ja waaye soxna Jaara comme modèle comme jigéen ñu jëkk ña euh, yu fi jaaroon te liggéeyoon bàyyi fi seen réew liggéeyaloon seenu askan loolu leer doy na sëkk ci soxna Jaara ñu wax la ne mooy waajuru Seexul Xadim loolu martaba la ndax Seexul Xadim ku xam na li mu indil réew mi waaye li mu indil umma islam bi bu demee ba soxna si nag ñu ne ku tedd kii ngeen xam ne mooy nekk koo xamante ni mën ne ab mujaddid la mën nañoo wax itamit ne ku ñëwoon la lislaam la kooku nag bu demee ña la ña lan ay royukaay la kon nag mën nañoo waxtaane soxna ci royukaay ak ci màgg bu mu xamee ne ak dundam bariwul ñenn ñi misaal ko ci fanweeri at ak ñett ñenn ñi misaal ko ci lu gën a bari loolu waaye loolu lépp da ngay yëg na dara bariwul ci fanweeri at ak ñett bariwul bariwul ci nit kuy liggéeyal yàlla koo xamante ni nag fi bëgg a bàyyi dara bariwul gudd fan nag ni ko nit ñi waxee jàpp na na at yu bari la fekk na gudd fan du at yu bari mooy liggéey bi liggéey bu nit ñi mën a xam mooy gudd fan loo xamante ni nit ñi duñ ko fàtte seekal bu dikk di la waxtaane seekal bu dikk di la waxtaane ba mel ni yaa ngi dund borom xam-xam yi dañ na man araxa wàlliyan fukka annama ak yaaw képp ko waxtaane wàlliwu dafa mel ni dekkalaat nga ko umu taxaw soxna si nag mel ni loolu day feeñ day feeñ ci wàllu communication boo xamante ni baaxul naa koy dugal sama bos bi sa waaye loolu dafa war a metti ñëpp ñu delluwaat gëstu ji euh, ci wàllu téere wala ñu gëstuwaat ci wàllu xam kan mooy soxna si ak lan moo nekkoon mission mission passé wut ku jàng siira soxna Aysa ku jàng siira Xadijatu ku jàng Faatu bintu xam ne ñooñu rek ñoo doon ay référence ak Mariama mi ñu ko tuddee loolu rek ñoo doon ay référence mu toog bi mu dikkee fële ñu ko denc ca Porokhane mu nekk fa foofu la ko fa yóbbu woon mooy taxawal lislaam loolu benn point la mën nañoo wax ne lislaam amaat na fa beneen cër dafa mel ni boo jaar jaara jaarut woon wala nekku fa woon dëkk ba du mel ne aw turam du mel ne ci dëkk ba dëkk ba du màgge noonu ba tey dëkk ba tey bokk ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a riis ci dëkk yi ci wàllu suuf ci wàllu dem ba nu dëkk ko ba dëkk bi mel na ni daanaka jeex day bëgg jeex sax wala mu xat àgg ci xataay àgg ci dem loolu nag nitub yàlla ko fa jaaroon rek moo waral loolu muy soxna jaar di royukaay boo xamante ni histoire am war nañ koo teg gis ngeen barabam bi bi ko tabaxee wane ne lii mooy barabam ak jàkka ñu ko tabax waaye yëg nañ ne jamono dem na ba yëg ne barab ba xat nañu tojaat dem nañ ba yëg ne jàkka ji xat nañu tojaat loolu nag day wane ne liggéeyam moo àgg foo xamante ni waxtu wu nekk nit ñi dañ koy gën a xam muy gën a yaatu bokk na ci bisam bi boo xoolee dimension bi am ci màggalam amul ci benn màggal boo xam dañuy ne jigéen lañ koy defal jigéen lañ koy doon boo xamante ni tey bu newoon màggalu Touba su wëyee màggalu Soxna Jaara moo ciy topp moom màggalu Sëñ Fàllu da wax ne ñoo kii mën ngaa jël soxna si ne soxna si ndax moo sëñ bu mag bi ak sëñ Fallou ku doon xool kan moo ëpp turu doo doo a tëb tëb rek dëgg yàlla ne diw sàngam la doo mën a wax ne sëñ Touba la doo a wax ne sëñ Fallou la doo a wax ne soxna la waaye li ngay yëg rek mooy kon jàmbaar la jàmbaar joo xamante ni bu ñu demee ba fi mu àgg ñi koy tuddee doom kenn ko ci mas a gis boo seetloo turandoo yi bari yi ëpp dangay wax ne kenn fekkiwu ci jamono. histoire nag li na ñu bari ñu ko tudde doom waaye yaakaar naa ne ñu ci néew ci ginnaaw ko tudde ci ñoo xamante ni doon tudde ay doom waaye ginnaawam li màggaat xam ko bëgg ko sopp ko loolu kenn xamul nu toll mu doon jigéen joo xamante ni nag ba muy liggéeyal yàlla daf koo liggéeyal ci anam bi lislaam nga ku ko liggéeyal mooy nit ko am jom nit ko am fula nit ko am dogu soxna si amoon dogu yaakaar naa ba muy dem Saloum dafa nekk fële ca Porokhane muy tàngaay bi nekk fa ak ndigali ay kilifaam ak yooyu yooyu naa ne ku nekk xam na bokk naa ci wax ne communication bi ñu ci def bokk na ci li ma gën a naqari wala naqari yu bare bari koy tudd di tudd Maam Mor Anta naa soxna su mel ni ku déggaloon boroom këram laa ku loon kii yam ak ku nangam yooyu yooyu yellante ñuy wax nan la nekkee woon ci kër kër yi dëgg la dinañ jàng jàmbaaram dinañ jàng waaye di ko traité comme ni ñuy traité benn jigéen bu jaar nii rek loolu ñett na ci xol yi ku koy traité man nga koy traité ci façon boo xamante ni maanaam nit koo xam ne ku nit ñi mën a roy bëgg référence man nga koo roy ci wàllu fulla ci wàllu sàmm ci wàllu xam diineem ci wàllu waggar sëñ mag bi nee na soxna jaara mosumaa gis ku mën a denc secret ni moom li mu gis ci man waaye dara dara dara luy tax mu wax ko loolu dafa bokk ci kawteefu jigéen bu fay boobu bu fekkoon loolu rek la ne jigéen ñi di roy ci soxna si doy na man a denc secret doomu aadama dafa war a di mën a surtout jigéen li yàlla na na martal ci moom juróom-ñeenti weer ak denc ci benn mbir ci yow mu ku yàlla amul ci yow al amaana amul ci yow wóolute amul ci yow confiance du ko def ci yow kon jigéen ñi war noo dem ba loolu ñu doon loo xamante ni denc waaye yi ñuy denc banque xaalis fi mu toll li ñuy denc ci ñoom moo gën nit la ñuy tabax ci ñoom kuy denc ci nit nag te yàlla moo am confiance su denc ci yéen nit ñun dénk banque suñu xaalis li yàlla am wóolute am ci amaana bokkut ak li doomu aadama am wóolute yenn saa yi ñu dénk ci banque ñu ne banque ba perte na wala daw naa xaalis bi wala nangam mais ki yàlla yi dénk day am ci moom confiance ne du trahir yàlla soxna si daf caa bokkoon ba bokkoon ci loolu. bokkoon ci ñi doon tabax yi tamit suuf ngir doomu aadama yi ko war a dëkk buñ dikkee fekk ko ci anam bu sell pour tey li ñuy wax suriyatan tayyibatan ci anam bu tey ni wala baladu tayyibu ñu fekk ko ci sëñ bi dafa soxna si dafa mel ni bi muy dikk loolu bokk na ci li mu doon xeex xeex na ba jamono ji mu dikkee jamono ju nëx la waaye indi na fi lu tey lu sell lu tey lu sell li mooy lan mooy sëñ Tuubaa ak Maam Moor Jaara ak ñeneen ñi fi am àdduna di leen tudd waxtu bu nekk ñu tudd seen i tur ni ñuy jàng faati yi ñu koy tudd seen i kenn mënul xëy loolu suñ koy wax nag xel day dem ci cosaanu màggal yi nga xam ne sëñ Basiiru moo ko def na moo tëb sëñ Basiiru sax ndax yàgg lool waaye ci li nit ñi gën a teg seen bët daara joo dem fekk fa nangami junni nit ñoom ñëpp soxna si lañ leen tuddee daara jooju di mokkalal ay kii loolu mel ni kiimaanu soxna si la sëñ Moussa Bassirou dafa mel ni dafa si lan la bëggoon mooy koo xam ne daf fee naroon na nekk toog di jàngale ak di yar sëñ Moustapha xam ne njukkal li mu ko war a mën a delloo mooy ñu ku ñu ko tuddee ñu delloo si waat ko jox moom it su yéene ci róolu ñu tuddee say soxna si ay doom bañ na ko ba dafa mujj képp ku judd ci ay taalibe wala nangam da wax ne la soxna lan muy tuddi loolu dafa mel daf ko roy ci sëñ Blaat sëñ Blaat dafa mujj ci jamono mu wax ne ay doomam lim ci yor ci ñu ngi tudde soxna jaara soxna buso nday buso soxna jaara tullahi maam buso yooyu yëpp ak sëñ bu mag bi loolu daf ko jàngale ne ku fi jaar la koo xamante ni war nañ ci ay mbiram lu mu mënta jàng histoire am tamit na lu muy sombale li muy symbole mu saa bu ñu ko wooyee saa bu ñu ko gisee seen xel dem ci soxna si yiw lañ ko tuddee ku mag ku rëy ay mbir koo xamante ni jaar ci jaar bu gàtt waaye liggéey fi loxoom ba léegi àdduna ñu koy ji yaakaar naa bari nañu dund juróom-ñaar fukki at wala téeméeri at ni ñuy tuddee soxna jaar duñ leen ko tuddee ni ñuy xol yi di tooyee ci soxna jaara duñ tooyee ci seen xol xol buy dund bu nekk boo xam ne amoo benn feebar saa boo déggee tur soxna sa xol dellu ci lislaam Sénégal nag dañoo mën a wujjee waxoon naa ko bu ñu tuddee soxna jaara daal di tudd leneen loolu sax bokk na ci mën a wujjee gi ñuy wujjee dëgg la waaye yàlla sax dañ koy wutal wut bi da dégg wala yàlla ak yaali waaye ku nekk xam na ne moom la soxna jaara yàlla ak yaali mel ñu la soxna jaara mel ak yeneen soxna yi koy tuddee ndax waxtu wi muy jóg di liggéey boobu ñu bari ñu ngi tëdd di nelaw wala xëyagunu sax xëyagunu nit ku mel noonu bu ko amee mooy modèle nan ko sàmm aar ko ci lépp aar ko ba kenn du ko mën a jaar fenn ci wàllu wax joo xamante ni wax ju matal di la wala wax ju doyadi wala wax joo xamante ni di ko traité comme ni ñuy traité benn jigéen rek bu fi jaaroon soxna jaar bi mu nekk woon kër gi mu doon sëy ni mu doon def naan waat ko tàmbaloon sama bopp ku ko waxoon sama waajur mu naqare la kenn koo koy wax di ko wax ci waajuru sëñ bi man ak soxna si mu a ñëw ngay tudd programme ay jikkoom yi mu doon wane loolu dafa doy ci wàllu communication bokk na ci nag ngay nettali loo xamul nga bëgg caa wax ngir bëgg ngóor ngir bëgg jàmbaar xissa bu nekk nga jële ko fu nekk àjjo ko fa ñëw tey ko soxna si ndax lan dafa bëgg lu la neex te soxna si dafa bokk ci nit yi nga xam ne ku leen waxal loo xamante ni da nga cee jublu rek ngir wax ko rek loolu la la ci mën a fekk ci mbugal la la ci mën a fekk ci bàkkaar la la ci mën a fekk ci deltu ginnaaw sax ci deltu ginnaaw ndax ku toll ni soxna si nga koy waxal wax ju yoo xam ku ko dégg bu yëgee ni ki ngay wax sax moo jur Serigne Touba day xam ne yow kat martaba soxna si xamoo ko boo ko xamoon doo ko nattalee nattale bu doyee bi loolu nag nañ ci delluwaat ñu xam ne soxna si soxna si Touba da koo fonkoon ba waxtaane ko ñu birisement sax daanaka dégg naa ñu ne ko doon aay ko doon aay te la taxoon mu ko doon aay xam naa ne bokk na ci lii di ngeen dégg ñu ne sëñ bi daana aaye firi alxuraan da jël masala moomu taf ko sëñ bi aay wut ko firi alxuraan waaye ki ko xamul di ko jéem a firi kooku la koy aaye waaye ki xamul soxna jaare di ko waxtaan kooku la koy aaye kon bu nu demee ba tey mu bokk ci ñoo xamante ni doyloowul rek ne sant ay sërif la bokk waaye dafa doyloo ne liggéey mooy jariñ mu liggéeyal lislaam ñaata junni nit ñooy waaxu di dem poroxaan di dem poroxaan di dem na te kanuy dem muy jigéen koo xam ba mu fi jógee léegi nangami as la ñu yëg na ci seeni xol am na lu ñuy def bu mu demee ba ca barabam am na lu muy dundalaat ci seeni xol waaye am na lu muy dundalaat ci seeni roo loolu nag bu fekkee ne ñun ñoo ko xamaloo war nañ koo roy loolu doyul doyul sëñ Tuubaa bu waxee ne axsantu billaahi inni li abadan fillan wahimu wa ma abaaw ya baaw loola boo xam ne dafa bëgg rek yonante waaye daf koo bëgg ba noppi di ko xam nañ ne roy rek moo fi jariñ soxna si nag bokk na ci bëgg ko mooy nga roy ko roy ko ci góor mooy yaral sa njaboot bu jigéen xam leen ne leen benn référence moo fi am moom laa xam ku ko roy di nga jariñu àdduna di nga jariñu àllaaxira muy soxna Buso muy soxna jaar bu fekkee ne jigéen nag am nga ko ba noppi ñu tuddee soxna jaara ba noppi nga gis ci télévision bi élection ministre ñuy wax ne soxna jaara na ñëw wala ñu ne élection nangam wala ñu ne nit kuy fecc ñu ne soxna jaara la tudd loolu yaakaar naa bu ñu demee ba am réew nag àgg ci soxna suñu tedde noonu ñi koy tudde seen i doom ba àgg ne ku dàqa fecc ñu ne soxna jaara diw sàngam ku dàqa woy ñu ne soxna jaara diw sàngam loolu aw metti lu xol la doon ci ñun yëg ni kiin koy tuddee war nañ koo seet li mu liggéeyal réew mi yooyu wutal ñu koy tudde kuy lay taxaw yëyowut ak koo xamante ni nañ wax dëgg yàlla fecc rek mooy métier ñu ne nañ ko tuddi soxna si loolu moom aw métti tu xol wu méttee métti métti la nag ngay dégg woy soxna jaara nangam baat yoo xam kenn xamul fii yaakaar naa di ngeen fi kuy jaara la kam ci wax jubluwul waaye loolu lépp boo dàqaati ci soxna jaara la dee aussi yooyu nag ay mettit la yoo xamante ni soxna si yëyowul baat yooyu nan protéger ni ñuy protéger sunu alal di ko protéger lu mu bëgg nan ko protéger soxna si moom wàcc na lu waay mën a def ci mbon askanele ko wala laal ci ne da nga ko cosaanu ci turam yow doomu lay wàññi waaye mënatoo wàññi soxna si dara dara dara nit nag bu fekkee yàlla daa wërsëgal loo xam jariñ la nga ko war a jariñoo ko war a jariñoo mais waruñu koo foye yaakaar naa ne fecc moom xam nañ deltu ginnaaw ci gën a deltu imaam Malik ñu ko laa ne boobu ndax fecc araam na wala araam mu ne fecc de xaw araam na wala waaye ñi gën a doyadi ci suñu nit suñu dëkk ñoo koy def te noonu rek la mbir mi demee ñi gën a doyadi rek ñoo koy def kon soxna Jaara daal yal na ko yàlla fayal yàlla taas ñu ci barkeem gëm la boo suuf lekk aw yaramam de waaye lekkul jëfum soxna si ku nekk xam na ni nii rek la fi nekkoon nekk ak sooroor boo xamante ni ba jamono tey dañ koy waxtaane nit ku nekk na exemple nga ci yow référence la ci yow nga jël ci soxna jaara daal jàpp naa nag kër ak murit koo war a dugg wala nga war faa dem fekkoo fa mu soxna jaara war a doon ci yow ndax am na lu def ci biir kër ga pour soxna jaar am na lu def euh, sëñ bi daan xaw ma lan waaye ku gën a fonk soxna si gën a jariñu maanaam ku gën a fonk soxna si gën a jariñu am na kon daan wax. Euh, fàtte naa turam ci mag ñi koo xam ne danaan tudde soxna si doom bu amee doom ji góor tudde ko sëriñ bi bu amee jigéen tudde ko ko waaye bi mu nagalee soxna si wax na ne moom soxna si sëñ <coughs> jéer yi waa daan suuru moo daan def loolu moo daan def doom ji góor yi mu am mu tudde ko sëriñ bu mag mu dee jigéen mu tudde ko sëriñ soxna jaar doon loo xamante ni bi fi jógee ci la soog a xam ne njëriñal tuddee soxna si doom tuddee soxna si doom bokk na ci ay jikkoom ak meloom suñ ba si nekk la nee na jamonoy mbóoya wala jamonoy sedd da daan tàngal da ndox mu sedd di ko jox dongo yi muy xeetu jinjër yooyu xeet yooyu di ko seral ba sedd mu koy joxe nee jamono yi nga xam ne sedd day ñëw day fexe bay taal di yóbbu dongo yi ngir ñuy jaaru ngir ñu kii loolu nag koy wane farlu bu mu farlu ndax jamono yooyu day jamono boo xamante ni ku tayeel ci jóg ku tàngee am ñoo xam tëdd rek la ñuy bu seddee waxi nopp yooyu nag ci la nit kii waxtu yi nga gën a seer la nga jox ko ko yàlla mooy nga jox yàlla yi moom la soxna si sëkk ci Porokhane du woon dëkk kenn ku la wax ne kenn ko sañ ci mën a wax fi mu ba bari dul waaye fi mu toll ba léegi ay murit ñu dul murit sax dëkk nañ ko waaye kenn ñu wut dem adressé dëkk ba lu jëmul ci soxna si mu toll moom na ko ci moom boo xamante ni du moomu nit a ko ko jox waaye yàlla mi moomoon suuf si moom lépp moo ko moo ko moo ko jox moo ko jox moo ko tamit moo ko moomalee foofu kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant mbokk yi nga xam ne ñu doon seetaan a wax jële ko tibbe ay jéem loo xam du xaaj du jeex. waaye fii doy na yem rek ci soxna si ndax na xam ne soxna si am na méthode boo xam kenn mënu koo waxtaanee wala boo ko xam kenn waroo koo waxtaanee moo tax ñu tëdd doon te wax bi waaye liñ ci jublu rek mooy avertiser suñu bopp ak avertiser ñiy ñëw ñu xam ne soxna si du même même communication bu neex lañ ko war a communiquer léegi am na a waxee am na baat yu mu moom am na tëggin yu am na waxin yoo xam mooy yàlla ci soxna si ku ko def yeneen waxin nag ñàkk nga ko war ma ñàkk soxna si war ma nag dara jëlu ko musiba rek yow kon ñu ngi sant ñëpp di moytuloo suñu bopp di moytuloo ñi ñëw ne soxna sa ay baati boppam la am wax yu ñu ko waxee ay teggin yu ñu war a wax jëmee ko ci moom kon nag ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp jox leen daje ci yeneen i jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullah